trop euh, ku am ku am constipation nga baal mhm. am constipation am ballonnement mhm. tanki yi di néewi sol ngelaw nii néewi mhm. hmm? koo xam da daa sol ngelaw moom mu néewi ni xam nga li may wax ay sol ngelaw néewi ku am problème érection muy goor manam euh, am faiblesse sexuelle am voilà non jigéen bu am perte blanche xam nga li may wax jigéen bo xamante manam da doon gis règle mais doon ba gisatu ko Uh-huh. xam nga loolu day tere am doom. tout à fait ok ngay am loolu. góor wala jigéen bu am biir buy metti uh-huh. ndigg liy metti yaa ngi comprendre li ma uh-huh. bopp yi metti loolu yëpp dañ la koy fajal. loolu na solo. voilà loolu moom. boo ñëwee wala nga am insuffisance de sperme maanaam sperme maniw bi ngay am day ndaw. day ndaw wala sax mu du du kii. ndax souvent da dégg nit te mu ne la maanaam tey jii euh, bu bu seqee ak maanaam jigéen. maanaam da ngay gis maanaam day day wàccaat. voilà du mën a yegg fa mu war a dem day wàccaat mm-hmm. automatiquement. loolu yëpp bu ko amee problème yooyu noonu. Mm-hmm. wala awra bi xaw a mu xaw mu xaw a xeeb awram tuuti. maanaam mu ndaw ko waaw mu xeeb ko waaw. bu ñëwee ñu xool ñu xam lu ko def dañ ko koy dañ ko koy dindil. bon mm-hmm. am ba rek xam nga gars yi a ñu naan yokk awra amul néeg nii néeg nii. mais après loolu yëpp <laughs> bu nit ki ñëwee rek dañ ciy waxtaan quoi incha allah. tout xam nga li may wax. voilà ku am problème yooyu yëpp. bu ñëwee wala koo xam ne këram dañ foo sul liggéey def sul liggéey voilà tout à fait yaa ngi comprendre wala voilà wala nit koo xamante ni dafay nekk liggéey bërëb ñu yàq place am mhm. wala kuy jaay bëgg ay client yu bëri ñëw ci bitigam mhm. wala kuy def commerce xam nga li may wax mhm. ok donc affaire yi moom dafa bëri quoi ça dépend ci nit ki bu paree samp place am mën naa mën nañ la sampal sa sa bërëbu liggéeykaay mais da ngay prêt pour loolu loolu nit ñi buñ prêt pour loolu rek xale jigéen ñi daanu rab di daw xam nga voilà loolu yëpp affaire yi dafa bari trop mais nit ki bu ñëwee pour loolu rek dañ dañ ko koy lijjanti incha allah. absolument ku am ñama tamit. fu mu hmm. am ñama mooy nga mu tas dox nii tasax tasax benn ngelaw. Hmm. mu mel ne comme ku xaw a dof tuuti nii di wax mel ne ku dof quoi. comme ku waaj a dof. Ah waaw voilà. loolu tamit dañ ko dindi ku ñu sànni corde ak nu mu manti mel ak corde bi nu mu manti mel nag laa la wax. Hmm. waaw mu def góom mu nekk biir yaram bi mu nekk biir bopp bi. mu nekk ci tànk bi. waaw kort moom bu mantu mel moom. souvent da ngay gis nit nga gis benn góom dal ko mën naa nekk moom ay at. du wér bëree bëri te du wér waaw. waaw te doo xam lan moo ko waral. jëm mm-hmm. hôpital du dër du dañ. bu nekkee góom bu manti mel kort bu manti mel moom góom tamit du góomee ba nekk kort. Mm-hmm, tout am na góom mën na nekk def-def. waaw loolu ñu dabare. ak kort bokkul. mën a def dabare mu am benn góom nii du wér. Mm-hmm. fekkee du kort mais dabare la. tout à fait nit ki bu amee loolu noonu dabar nag dafa bon parce que dabar mën na jëf famille ba cette génération. tout à fait dabare baaxul. daf daf bu ñu la ko defee dëgg dëgg dëgg maanaam famille bi. du day topp famille bi kat day topp deret bi waa. tout topp am na dabar yu mel noonu day topp deret bi dabar yu baaxul dabar yu bon la. absolument loolu d'habitude ñu koy liggéey suufu ba mel lañ koy liggéeyee. waaw maanaam bu ñu suulee nit ki ba pare bu ñu gasee bu ñu gasee bàmmeel bi ba pare nii. dañ koy suulaale kanam. non non bu ñu ko gasee ba pare. xam nga bu ñu le temps que instant koy gas xam nga suuf bu nekk ci da gis ñu def nii quoi xam nga li may wax. waaw léegi suuf si day dugg fii. day dugg ci ci xam nga day dugg fii nii ah, waaw léegi suuf suuf si yow yow mii sëriñ bi ko soxla foofu boobu ngay récupérer nga ñëw. nga denc ko saa amee soxla ci rek pour yàq nit ki maanaam ba juróom-ñaari nga xam ne dootul tekki dara dara dara dara dara. Hmm. lu mu laal mu yàpp lu mu dugg nii. boobu suuf boobu ngay jël rek jar ci li ngay jar nga def ko ci buntu këram walla buntu place am wala fu muy jaar. jeex na benn yoon nga koy def jeex na dootul. daful dañ deret bi yàqu na quoi même ku fa même bu fa ni takkee jabar sax kooku tamit lu ma war alal alal day yàqu. tout à ah. loolu doy na liggéey bon loolu ku ci ku ci ñëw également yooyu moo gën a bon korte quoi korte parce que korte benn nit la da koy rey rek mu jeex. Mhm. te loolu maanaam tey jii ku mu dal fan mu dal également bu ñëwee ci yow mën ngeen koo jàppale en tout cas. waaw ku koy def moom mën na koo dindi normalement. tout à fait nañ koo dindi. absolument gis ne également it euh, ñu ngi dem ci en tout cas examen yi bac bi presque yegsi na. waaw ah, loolu moom euh, liggéey liggéeyu ma ko na booy jàng. jàng seen leçon yi daal waaw loolu <laughs> <laughs> leer na daa ji nag loolu moom leer na kon élèves yi def leen ngay ah, a am bag nga am parce que booy nañ jàng loolu moom liggéeyu <laughs> kon moo di moodu yi nga xamante ñuy dem également it eh, bitim réew souvent kayit leen lool ah problème kayit waaw waaw souvent dañ koy loolu xam nga moodu moodu nag dañoo sonn moodu mhm. moodu yi parce que Afrique fii nii boo xasee tukki rek dañuy foog ñu yor nga ay milliards tout donc diiku nag ñëpp lay bëgg a liggéey absolument doomu doomu xam rek doo xam noonu dañuy bëri. tout à fait waaw Afrique moom loolu suñu problème la quoi bëgguñu ko tekki. tout à fait souvent nga gis ay révélation yu garaaw. waaw donc nag ñoom Modou Modou yi nañ gën a defaru seen bopp quoi. parce mm-hmm. que xam nga rek man Sénégal fii laay liggéey donc xam naa li may wax. tout xam nga li may wax. donc du du lépp ngay wax ko quoi mais maa ngi ñaam ñoom moom vraiment dem leen yërëm. tout waaw ñoom moom damay ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm lool parce que dañoo bàyyi seen réew dem réew jàmbur di liggéey. liggéey pour daan seen. doole te man boo xoolee sama clientèle yi bëri sax ay Modou Modou lañ tamit. donc il faut ma ñaanal leen yàlla parce que ñoom samay xarit ñu nekk Espagne Canada Amérique Australie France. Mm. samay samay xarit lañ vraiment. am naa ci yu bëri sax yu bëri bëri. Mm-hmm. dama leen yërëm nag vraiment parce que dañoo bëri ay noonu trop dañuy foog dañoo am alal donc di ko ku nekk day jóg moo da ngay gis murmur bu tukki dem ba Europe dof wala dem ba Europe alal bu amoon yi mu yàqu. dëgg la donc voilà c'est ça quoi. doy na waar ma ne ko si doy na waar. doy na waar trop Modou mooy dañoo sonn. voilà donc euh, l'émission euh, fin. Mm-hmm. donc euh, dañ lay bàyyi rek d'abord nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne mooy mbokk États-Unis balaa ñu tëj waxtaan comme ni ma koy faral di waxee rek ñun moom ay ay ndaw lañ ay xale lañ donc euh, liggéey bii nii dañ ciy dugg ndigal moo tax ñu dugg ci. Mm-hmm. bu ñu amatoon ndigal duñ ci dugg. tout à donc euh, tëb tëb ñu tëb rek naan dañ koy def déedéet gaa gaa fekk nañ ko ci kër gi sax mais dañ koo jàngi tamit. Mm-hmm. mais dañoo am suñu ndigalu waajur am ndigalu sëriñ moo tax ñu toog ci ko def. Mm-hmm. donc bu fekkee ni wax bi ñu fi wax am na ku am na am na am na ku mu ciy lor. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaan yàlla mu jégal ñu baal baal ñu ak yàlla. jàppee ñu xale. wax yi buñ ci juumee. Ah. du du kaddu sëriñ yi mais ñun suñuy kaddu la ñun. waaye tamit bu rafetee nag du suñuy kaddu kaddu sëriñ yi la. absolument. ba bamana ko kuma ala sago ay sago donso de naa ba sago soo may sago asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf euh, mbokk yi tamit yéen a gisandoo en tout cas euh, ni mu ko waxee. donc lim na fi ay xeetu feebar wala ay xeetu jëf-jëf liggéey institut genre yu bëree bëri yoo xamante ne donc euh, képp ku mu dal wala nga soxla ay muslaay euh, mën nga ñëw fii nga xamante ne moo di ci euh, Gandou Diallo moo ngi nekk fii ci diwaanu Cap Maguékor mën ngeen ko woo ci numéro yi may waaj lim di la 77 837 34 73 77 837 34 sax nga woo ko ci numéro bi di 78 368 19 33 78 368 19 33 ngi fii ci diwaanu Cap Maguékor boo jógee Mbour boo rombee deux ci en tout cas Gandigal donc mu ngi nekk ci juste ci wetu station bi ci ginnaaw station foofu la nekk foofu nga xamante ne foofu lay liggéey donc mbokk yi euh, ñu ngi leen di jox dig daje rek ci beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf.